ñi ci ëpp teg nañu leen i bët làq leen jant bi ba jëf-jëf yi dëppoowul ak yoon bariwul lool ndee mënula ñàkk nag parce que sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne naa si muxtalifoona dama bind warale warale boobu moo tax société boo gis am na ñoo xam ni dañuy jaar ci yoon am ñoo xam ne duñu jaar ci yoon waaye globalement le bilan sécuritaire du Magal est assez positif waaye nag assez positif bi day am ay domaine yoo xam ni positivité bi dafay relatif domaine yooyu moo waral am na jurom ñent témèr ak jurom ñaar fukki nit yo xamni muy 970 individu yo xamni interpellé nañu len ci biir magal gi ñi ci alale jàmbur lañ len jappé ñi ci ak seen sago lañu len jappé ñi ci jax-jaxal ñi nga xam ni màggal moo leen indi la leen jàppe am na ci ñoo xam ni tamit ay accident mortel la def am na ci ñoo xam ni ci problème mu drogue lañ leen jàppe am na ci ñoo xam ni ci problème mu nekkin woo xam ni dëppoowul ak màggal gi la ñu leen jàppe li nga xam ni état tere na ko fi sëriñ bi tere ko fi ñi ko doon jëfee ñi ci ëpp suñu borom subhaanahu wa taala dimbali nañu ba ñu teg leen loxo làq leen jant bi loolu moo waral màggal gi lu ci bari sedd par rapport ak at yi passé ren jii moo gën a ren jii moo gën a néew ñu dee parce que secteuru police bépp ñeenti nit ñoo fi wàññeeku ci accident waaye accident yi nag téeméeri accident la ak fanweer ak juróom-ñaar ci téeméeri accident yi ak fanweer ak juróom-ñaar am na ci soixante eh, juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett accident matériel ak juróom fukk ak juróom accident corporel ak ñeenti mortel mbiru drogue bi moom xam ngeen ni société yi léegi dañoo yàqu waaye am nañ ci juróomi kilo yu chanvre indien yu ñu jàpp ak ñetti téeméer ak ñeent fukk juróom benn cornet yu ñu yu ak téeméer ak fukk benn ci ay joint yoo xam ni jël na jël nañu ko ci gaañ safar